yii mooy andi fitna ci dëkk parce que jamono jooju ay nit ñu sàcc xaalis réew mi barki démb dégg ngeen ak géwélam nga xam ne riite ak xalam lañ ko xamee woon tey mi ngi yor ay milliards denc ko ci ay chambre ñu koy sàcc te nag waxul CENTIF waxul procureur waxul kenn waxul parce que géwélu Macky Sall la est-ce que loolu jaadu na ñu jàpp koo xam ne lañ koy jiiñ mooy nee nañu dafa def publication ci page Facebook am ne ko ràpp ci kaso bi parce que ñii nga xam ne ñoo yor agenda góor jigéen ñoo ko sant Macky Sall na bàyyi doomu jàmbur mu dellu këram ñetteel bi ma bëgg a wax parce que dafa am lu ma gis dañoo am nag daje bu am solo daje bii artu la ci Macky Sall waaye tey la ñu suñu pré campagne wala suñu campagne kon dama bëgg ngeen dégluma ci lu am solo dañoo def coalition boo xam ne diggante grande coalition wàllu Sénégal la nga xam ne président Abdoulaye Wade moo ko jiite ak suñu coalition ñun muy Yewwi Askan Wi nga xam ne Khalifa Ababacar Sall mooy président conférence des leaders li ma bëgg ngeen jàpp yéen mooy dañoo dem ba daj ba xool ba xam ni ñun ñi ñëpp nag benn problème lañu am benn noonu lañu am te muy noonu senegal muy Firawna Sall ñu xam ni déglu ma rek ñu xam ni fii rek ñu xam ni fii rek xam ngeen may ma may ma may ma may ñu xam ni xeetu élection yi ñu jëm muy bi ñu jóge ak bi ñu dëgmal dafa di élection yoo xam ne raw gàddu la moo tax ñoom li leen gën a soxal mooy nañu fexe ba opposition bi continuer di diviser wu. bu ko defee ñu ne Ousmane Sonko moyetul PDS PDS moyetul Khalifa xalifa moyetul PRP ñun ñu continuer di tasaaroo ñoom ñuy bennoo di ñu duma continuer tey réew mi di ci def leen neex looloo tax ñu ne nañu ànd. kenn ku ne ci ñun yor na kuréelam kenn ku ne ci ñun yor na projet kenn ku nekk ci ñun yor na ay ambition am waaye sudee dañoo bëgg a Macky Sall continuer toog ci bopp réew mi nañu continuer tasaaroo ku nekk nekk topp sa yoon. kon bu ngeen d'accord ngeen ni ànd bi lu war la kon dama bëgg a bis ni ki tey ku fi bokk yeewi na jàpp wallu ku fi bokk wallu na jàpp yeewi. xam ngeen ndax lan ñun ñooy ànd campagne gis ngeen campagne bi Yewwi du jaar nii Wallu jaar ni ñun ñooy bokk campagne ndax département boo dem su dee Yewwi moo fa jiitu Walloo ngi ci gannaawam ànd ak moom ci list bi bu dee Walloo fa jiitu Yewwi ngi ci gannaawam ànd ak moom ci liste bi kon suñu destin daf yàllaa ko boole kon bis ni ki tey bu leen def xaj ak seen diggante wi ak wàllu benn liste bi la loolu nag moo tere nelaw Macky Sall lii moo tere Macky Sall nelaw ngal la waay buñ ko yàq buñ ko yàq nañ ko defar nañ ko dëgëral nañ ko dooleel bu leen kenn yóbbu ba ngeen naan tey ñun PDS néeg nii kon ñun dañuy def néeg PDS wala ñun diw ak nii déedéet fii mu toll nii benn bi la ak benn objectif mooy 31 juillet heure bii bu ñu commencé wàññi ñëpp xam ni Macky Sall abal nañu. ngeen may ma ngeen may ma ngeen may ma ma rendre hommage président Abdoulaye Wade dina ko rendre hommage xam ngeen ndax lan man waa PDS yi ñu ci bëri miinuma leen de. ñi ma xa ñi ma àndal assemblée xam naa leen ñenn ñi ci fan yi ak suñuy waxtaan xam naa leen